dikkati naa dañu daan wax coow la ca pëndub teen ba gaañaamul baaga turbine yéen a kaay naan maan coow li coow li fi ne ci réewum Sénégal mooy ñaar fukk ak benn ci candidat yoo xam ne fi ne daar daar en attendant les événements écarté nañ leen ci présidentielle 2024 bi yéen a kaay des médias bi naan maan ni ki démb lañ doon amal tirage au sort ngir parrainage bi nag ngir mën a bokk ci présidentielle 2024 bi juróom-ñeent fukk juróom benn yi ñoom defuñu parrainage citoyen muy ñaar fukk ak benn ci candidat yoo xam ni écarté nañ leen en attendant yeneen gars yi ñu yor seen dossier te fi mu nekkuñ ci xool sa dossier di wàññe benn ñaar ba mu mat juróom-ñeent ci ay pièces yi nga xam ne article 121 bu code électoral bi moom la laaj yow moom sab dossier daal di jàll waaye benn ci juróom-ñeenti dossier yooyee bu manqué da ngay toog xaar turbine yéen kaay naan maan bugaan gay dani ma ngi ci juróom-ñett fukk ak ñeenteelu position bi aljuma ji la bugaan gay dani di jaar ci contrôle bu parrainage bi le soleil yéen kaay naan maan boobu sept sage ña ngay andi ay leeral xam ni dossiers yi nga xam ne matal nu juróom-ñeenti ponk yi nga xam ne moom la article bi daal di digle dañuy daal di ber seenu dossier Boubacar Camara moom mbir yi Aïda Mbodj moo koy daal di tëj ay mandataire nag daal di xam ni mbir mi daal jaar na yoon Sud Quotidien daal na ma mbir mi ci loxol sept sage la daal tegu bu Boubacar Camara tijjee classe bi Sonko ma nga ca quatre Asia Idrissa Seck Mimi Touré Boun Dionne ak Malick Gakou fi mu toll nii nag seen xel mën naa la mbaajoo boppam ma ngi leen di xaar laas yéen a kaay naan maan en tout cas moom président Badio Camara ma leen di artude ma nga naan leen juróom-ñeent ci ponk yi matal leen ko lu ko mooy làmbaay ñaaw bés bi le jour naan maan at waa ngi jeex tirage au sort ñu daal di koy amal ci kan bi waaye daal di koy amal ci présidentielle bi Amadou Ba parrainage bu élu territoriaux yi moom la jël am nay candidat yoo xam ne déposé nañu mani la te amuñu sax caution te ñooñee mën nañoo yàqal ña nga xam ne ay candidat yu sérieux lañu dugal seen loxo ci mbir mi def ci seen alal ak seen temps ngir mën a jàll jubloo yooyee mën a yàqal ñeneen fayallaahu vox populi naan man en tout cas Ousmane Sonko ma investir ni moom préfet daal dinay aaye Ousmane Sonko investiture am bi a amoon nag ca terrain ak pes bu ndakaaru moom Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye di xam ne nag trouble à l'ordre public boo maytul mën na ko am waaye tam tere askan wi doxi seeni soxla El Malick Ndiaye naan dara geneenu provocation rek loo xam ne deesu ko nangu tey deesu ko nangu ëllëg Walf naan man en tout cas diggante Ousmane Sonko ak président Macky lëmbee nag bu baax a baax atub 2023 bii ñu génn boo ca dindee la président Macky Sall ne candidat moom duma ko doonaat la ñu seeyal Pastef la ñu sànk Ousmane Sonko dugal kaso lii daal nay lëmbee bu baax a baax atub 2023 bi l'info daal di xëy sampub laaj lan moo tax nag moom Amadou Ba ci boppam daal di làqu ci parrainage élus territoriaux yi daanaka maire yeeg ñoom seen daal ñoo ko daal di parrainel lan moo waral làqu googee amadu Ba daal di koy def daal di bàyyi député yi bàyyi parrainage citoyen mbaadu nag dafa am lu mu njort ci biir am moom Amadou Ba libération yéene kaay naan man en tout cas démb démb ca demam nga démb démb moom Amadou Ba ca diwaanu Pikine aw nay fa xewoon daal moom maire bu jëda caaroy kaw daal dina koy teertu ak i militant am diggante dajale imaam yeeg maître coranique yi waaye tam askan wi nga xam ne ñoo dëkk ca diwaanu Pikine moom Mamadou Gueye daal di leen di dajale ba maar day taali waxtu woowu it ñu gis Isaaxa Diop ca ga mu daal di lalal tapis rouge candidat bii di Amadou Ba mobilisation Isaaxa taxoon Amadou am jafe-jafe ce ca grande mosquée ba yéene kaay bi naan man en tout cas lii laay wax de biir partem bi ci boppam la mbir yi nekk <laughs> lii nag kon taxul Amadou Ba daal di daw ca élu ya le quotidien le quotidien nan kon en tout cas 2023 bi loo ci mënti waxit diggante manifestation yàq-yaxeet diggante faatuk bakkan diggante seeyal Pastef arrestation njiital Pastef ba at woo xam ne ma ni la dossier Ousmane Sonko bi moo ko marqué l'observateur nan kon nañu fexe ba li nga xam ne moo ñu toppoon 2023 du ñu topp 2024 diggante politique boo xam ne yëngu na koom goo ni ma ngay suux sécurité ak wàllub social goo xam ne ma ngay bëx bëxi bum ñu topp yéen kaay futur média bi naan nañu anticiper ci bomb yi nga xam ne ci politique lay bàyyeekoo daal di waxtaan nañu fexe kaaraange am ci réew mi ci wàllu koom ci boppam na nañu def kéemtalaay kattan ba Sénégal mën ci boppam moom ci cëgal gu yëm Sénégal gu ñoŋ ni ki ëllëg bés jour naan kon en tout cas ku dalal sunu xel ñu jël de diggante ñetteelu mandat dina amam du am troisième tranche fal bi diggante président ki Sall ak Idrissa Seck Karim a Wade ak Khalifa Babacar Sall duñu bokkam ñu bokk seeyal Pastef lii ci boppam lor nañu 2023 bi bu ñu topp 2024 tribune yéen kaay naan kon sa ñaan dëgg kay na taxaw ci wàllu ceeb bi dañoo tere nag ceebu Inde bi dugg ci réew mi te boo moytul ñàkkub ceeb mi ngi yor Sénégal lii ci boppam kuy ñaan moom nga war a ñaan bu ñu topp 2024 te bu mu